E Pastef di opposé wu ñoom euh, boo xoolee bu ñu ubbi waa kañot xaalis bi dinañ fexe ba euh, duñ si jot wala ñi nga xam ne ñoo sosoon cagnotte bi ñu daal leen di jàpp fexe ba tëj leen gis nañ fi ay cas yoo xam ne jot na fee jàll jëruñu si ñëwaat waaye dinañ dikk si cas bu bees bi nga xam ne nag moo daal di am mbirum Bah Diakhaté bi nga xam ne nag ay kàddu la jël tek ko ci kaw premier ministre bi di Ousmane Sonko ba legui premier ministre Ousmane Sonko yekete yëkkateegut ben yon kaddu ndax mbir mi nak nekul mom ak ba jaxate waye ba jaxate la ak procureur de la republique ndax mom moko wolu mu nek ay mbir yu doy waa dinañ ci ñew ak ay révélation yu ama am solo bu len faté abonné bés cloche de notification bi ñi ubil kañot ba jaxate ñi ko ubil kañot mbolem ku ci duggal ku ci duggal ben deureum nañ ko japp waaw kañatu Bah Diakhaté bi daal ku ci dugal benn dërëm rek nañ ko jàpp waaw ñii de ñii ñii ñii dañ fontu ñoom de ñoom xamuñu ne li ñu def ñoom ñoom ci tànk yàqal Macky Sall lañ ne yàqaluñu yàqaluñu Ousmane Sonko ak Diomaye de Macky Sall la ñuy yàqal parce que Macky Sall lii buñ ko dakkalut Macky Sall la ñuy jëli Macky Sall la ñuy jëli def ko résidence surveillée fii euh, euh, atte ko marug Maroc mu munu ñëw xañ Macky Sall Maroc moom buñ ko laajee Macky Sall danañu ko jox waaw Maroc moom buñ ko relation ak Sénégal moo ko gënal moo ko gënal Macky Sall buñ koy laaj Macky Sall mu di ñu ko jox kon yéen waa APR yii yaakaar ne da ngeen di défendre Macky Sall da ngeen di lor Macky Sall da ngeen ko yàqal parce que am na loo xam ne su ngeen ko arrêté wut Macky Sall la ñuy jëli jàpp ko arrêté ko ku jàpp Macky Sall nag. keneen taxul ñuy wax te bu ngeen yaakaaree ne Macky Sall mu ne su jàpp dangeen da ngeen di nax seen bopp bañ leen a arrêté seen yii ngeen nekkee rek waaw beneen bi ci topp média yi média bu invité ci benn benn nit ci teleem wala ci rajoom wala ci journalam muy wax naka sudul noonu suñu njiit yi nañ ko jàpp jàpp borom télé ba jàpp ñu liggéeye liggéeyee du mujj fenn parce que ñoom dañ doon wax ne ku ñu rey du mujj du mujj fenn ku lapp-lappi ñu takk lu ci buum yeew la sànni léegi jëni lekk la du loolu lañ doon wax ñu dee reyuñ reyluwuñ dégg nga xëy na yéen yéen a xam rey yéen a daan reylu yéen a xam rey mais ñun rey reyluwuñ waaye nag képp ku bëgg gàllankoor ñi nga xamne ñu fi nek nekkal fi réew mi amal njëriñ réew mi li ñuy def réew mi bëgg ko réew mi ñoom lañ bëgg ñoom lañ fal ñuy liggéey liggéey bu mucc ayib képp ku taxaw pour galankor ko sénégalais askan wi danañ jàmmarloog yow te askan wi xajuñ ci kenn ndigam si ci Macky Sall lañ xajut waxuma laa génn ay mboco mboco yi mboco mboco mboco yii Macky Sall mi mi nga xam ne moo doon jéem a jàmmarloog ñun ak équipe am da ngeen si moom lañ dàq génne ko réew mi waxuma la mbocco mbocco yi na ngeen réglé na ngeen réglé kat moo gën ci yéen baax na tunkara yow da ngaa baax rek yi waaye lii yëpp jaru ko woon explication yi jaru ko parce que nit ñi xam leen leen ci wax lu dul dëgg sénégalais yi xam nañ leen ci wax lu dul dëgg ci loolu lañ yore woon réew mi wax lu dul dëgg dégg nga wax luñ dul def ak def luñ dul wax jaru doon explication bi sax jaru koon woon parce que nit ñi gëmuñu ko liñ la waxal gëmuñu ci dara parce que mosuñoo wax lu nit ñi gëm mosuñu ku mosul wax dëgg ku waxalee nit bu sosalee nit luñ fi waxul Ousmane Sonko te luñ ko mos a wax ñoom ñoo mujj ne dañ doon fen ñoo mujj waxal seen bopp ne dañ doon fen liñ doon wax waxuñ dëgg kon yow suñ la waxalee lu amul jarul mu di la métti jarul expliquer ñoom xam nga luñ bëgg divertise maanaam heure bu ne ñuy sànni ci média yi wala ci internet bi loo xam ne patriote yi dañ ciy nekk rek dañ ciy nekk rek ba fàtte suñ njiit yi li ñu li li li ñu jot ak def biñ toogee léegi ba fàtteloo ñu ñun naka la ñuy def ba protéger suñu réew ak suñu koom ak suñuy njiit loolu rek la seen yitte yëpp mooy heure bu ne heure boo xamee ne patriote yi ñu ngi concentré wu ci liggéey réew mi rek ñu sànni benn affaire boo xam ne dañuy fàtte loolu nekk ci loolu loolu nag patriote yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que ku jëmul fenn jarul déglu koo xam ne jëmul fenn ki jëm fenn wax naa ko fi ku jëm fenn munta ànd ak ku jëmul fenn parce que ñoom jëmuñu fenn kon jaruñ topp waaye nag ñàkk topp gi Eh, eh, def naka su du noonu bokku ci de ku ci def naka su dul noonu wala nga wax ko da nga xam ne sa yoon nekku ci bu soobee Yàlla complot bii ay nit ñu tuuti comme ay Abdoul Mbaw ak ak genre maire boobu jeune ak genre ministre boobu la ak beneen booy bu xaw a xees boobu ci ñoom ngay gis ñuy génne di wax ñooñu xam ne amuñu benn expérience politique ñun expérience su sàcc la ñu am expérience su sàcc la am a amuñu benn expérience pour développer ce pays là L'expérience est vraiment am rek ont les bras cassés là à quelques monté un coup ont échoué Ils doon saga ñom ñoko jox lepp jox ko pareil même ba ci mam Matar pareil képp kuy wax rek ñom ñolo mës ngeen gis ay anciens ministres. ak ay vice président ñëw ñëw buntu police taxaw ndax yu ay kasaw kasaw bañ leen sànni lacrymogène kon am na ku ma ci xam ku ko xam ku mu woo naan ko sax ay yi nekkatee lacrymogène ñii la safe ma ne ko ñun lii la ñu dékku te ba ñu koy dékku lacrymogène dañ ko dékku ak ak fierté dañ ko dékku parce que dañu xamoon ni dañ doon xeex dëgg la. waye ñom ñetti policier lañu sanni rek ñu départ dem seen kër ñi ñu noy ñi xam kon nga xam ni ñii fi nek muy les petits politiciens la Abdoul mbaw ak et consort la ñu sax gàllaxndiku bu ñu leen top ci seeni jëfine li ñu bëggoon rek moy ñu tal leneen duñu tal ñom seeni keuyit seeni dossier parce que ñoom ñëpp nelawatuñu am na ñoo xam ne ay comprimé la ñuy jël pour nelaw parce que xam nañ dinañ dugg seen kaw muy góor muy jigéen waaye ani plainte ba ndaw soosu waxoon doo fi doo dégg plainte doo dégg plainte parce que rapport am na yeneen rapport yu war a génn ñoom ñëpp dañoo dugal seen loxo ci suñu alal caxat caxatee ko ñoom ñëpp tant qu'ils loolu nag moo leen tiitloo ñu ne léegi nag nañu jéem a nag fexe mbir moo xam ne buñ ko fi andee kenn du ñu talati ñoom fi mu nekk nii bëgguñu ñu yëkkati seen i il faut feront tout pour que seen dossier kenn du ko laal dem nañ ci ay sëriñ dem nañ fu nekk pour que ñu bàyyi ñu bàyyi leen ñu am jàmm mais alal ji di ngeen ko delloo dinañ leen convoqué benn par par benn. ba tax avant mbir mii ñëw dañu constitué seen i xoleel ñoom seeni avocat yi ñu jël yépp yëpp c'était monté de toutes pièces moo tax chaque fois may wax ki ni ñun am na lu ñu doy am na lu ñu doy lu ñu war a lijjanti que di topp sàcc yi nga xam ne wuñu dara mais ñun bu ñu xëyee suba rek si la ñuy wax di ci wax di ci wax di dugal ay ay Mata Ndiaye tampi ci panel bi man damay damay am kersa waa jooju ñuy ketal di ko defal COPACEL ñu dugal ko ci biir. panel yi ça sert mais li ñuy def c'est du sérieux du ay caaxaan chaque jour ma wax ko ba ñu commencé président leen lii ñuy def du ay caaxaan bu si ay bakken rotee ngay tibb sa alal di dugal sa temps sa ñaq du ay caaxaan c'est pas du folklore bastamaa nag ba nga jëlee réew mi ba nga jëlee réew mi dootutul folklore tu face à la réalité te foofu lay transiter